jërë ngeen jëf internet sport live 221 daal leen ak jàmm ñëw ngeen tënkal leen di fi ruusee ci xibaar jëm ci wàllu tàggat yaram ëttu yéenekaay bii di sunu làmb bokk na ci la mu yaatal ci xëtam bu njëkk muy Eumeu Sène euh, mi nag bëgg a topp tànki kii di Boy Niang muy daan rakk daan mag Balla Gaye numéro 2 ak Sa ndax ci fàttali moom Boy Niang daal dinay daan ñaari doomu Double Less yooyu yëpp moom Eumeu Sène nag jàpp mag yi di Balla Gaye numéro 2 daan ko ñaari yoon niki dimanche cinq mai nag bi ñu dëgmal mu war a jano ak rakk ja di Sa Thiès foofee ci arène nationale structure bi di Albourakh Events bu Baye Ndiaye nag moo organisé euh, loole di grand gala de lutte nag avec euh, frappe ci arène euh, cinq dimanche 5 mai 2024 lay doon moo dox ci diggante Sa ak Eumeu Sène Eumeu nga xam ne kon moom nag dina tenté rek d'épingler un troisième Euh, fils de Double Less euh, ak nag euh, suivre li nga xam ne moo di tànki kii di Boy Niang wala sax un deuxième fils de Double Less mu nekk troisième victoire ci seen kaw gannaaw mu daanee Balla Gaye 2 ñaari yoon ba noppi def na nga xam ne rek noonu la kii di Boy Niang def ndax moom Boy Niang daal dinay daan ñaar ñoo ñëpp gannaaw Balla Gaye 2 nag ci ñaari yoon 2009 ak li nga xam ne moo di 2015 Euh, moom Eumeu Sène la mu bëgg rek moo di nag daan rakk ja di kii di Sa Thiès ni kii di mais 5 national ci Arène dina ko may kon mu dem rek li ñuy weef lu ñuy wax daan mak daan rakk euh, loolu nag des xaar ana fan la war nante di mbujjee ki gëtëm rejoindre Yékini alam daar ak kii di Ness euh, mu nekk l'histoire boo xam ne jàpp na ne rek pour le moment ñooñu juróom ci mbër rek ñoo daal di defagum lu nu man maanaam daal daan mag daan rakk ci li nga xam ne moo di làmb ndax Eumeu Sène mën naa ñëw rek yokk lim boobee wala déet loole dimanche 5 mai ak jàmm lay leer bu caraande ci digganteem ak ki nga xam ne moo di Sa Thiès ci arène nationale ndax moom mi di Eumeu Sène nag dana rek mën a euh, confirmer boppam ci jonom ak doomi Double Less wala déet Balla Gaye numéro 2 ak Sa Thiès euh, moom nag jàpp leen un dernier lutteur à inscrire euh, son no au palmarès des combats avant ki nga xam ne nag moo di. Euh, frère Eumeu Sène wala sax frère Balla Gaye ak euh, Sa Thiès ñoom ñaar ñooñu daal jàppale na daal euh, am nañu gan muy ki nga xam ne moo di Eumeu Sène mi nag yàgg dugg ci seen i kër googe te génnewu fa rek lu dul ndam. Adrien Senghor ak Gala Amalda retour gagnant de Général Malika moom Général Malika nag jàpp leen ak usine technique Boy fay aada Boy Bawol ak Tas Yaakaar Cheikh Dieng ak ki di Mody Euh, ak ña ca toftalu daal nekk nañ ay tenants de lutte sans frappe yoo xam ne rek ñoom daal ñoo ñuy def déplacement ci arène Adrien Senghor bu Grand Yoff nag foofu ca gala bi nga xam ne nag kii di Amada moo ko fa daal di organiser ni ki dimanche euh, bile lay doon bu ci lande contre Quincy le 28 avril Alioune Seye 2 nag moom yéeneem rek moo di am 4 sur 4 Gaston Production moo daal di woote rek ci national nationale ni ki dimanche bi ñu Eh, ngir organiser :fra fa nag benn grand gala :fra de :fra rêve :fra diggante Alioune Seye 2 ak kii di Quench bu eh, waaye tamit Albouri Jacobs Baldé mais tamit nag jàpp leen ne beneenub %e eh, journée dina daal di am ci championnat de :fra lutte :fra avec :fra frappe :fra CLAF ci diggante %e mbër yu ni mel loolee nag ca arène lay doon bu ca ñu xaar ko ci le :fra 28 le :fra 28 daal dinañu gis affiche :fra yoo xam ne moom képp kuy amateur ci lamb rek sa xol dina neex di nga gis li xam ne moo di ay ndaw yu bëri jëriñ ngeen jëf mbokk yi li mu doon xibaar ci bile vidéo yeneen ca yeneen vidéo lay doon bu ci alande laata loolu wéy leen di lay dabane ci seen chaîne ku déggan ci page bi tabu négo ñoo ngi lay ñaan nga abonné rek activer sa cloche su ko defee lu dugal ci vidéo rek nga bokk ci ñu koy njëkk a jot quatorze régions du Sénégal foo leen mënti ne diaspora bi kenn mun ngeen des cant ak ngërëm ñeen leen léeg-léeg yeneen xibaar ci yeneen vidéo lay doon bu ci alande jërë ngeen jëf